yées tabarkalla salaamaaleykum àdduna salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum képp ku ma ci tànn El Vision Média nee naa la saa su ne rek nii laa koy defee ngeen ci ànd ak euh, puissance tey nag maa ngi taxaw fii nga xam ne moo nekk frontière bu ki nga xam ne moo nekk borom baatu wurus bi mu ñëw seet si ki nga xam ne Sénégal ak àdduna wër këpp yëpp ñëpp ñoo koy laajte di ko seet laaj na ma kooku mooy kan euh, kooku mooy Baba Diallo borom baatu wurus boobu euh, doomu balnier bi moo fi wooyoon li nga xam ne moo nekk Baba looy laaj ba nga xam ne xale yi sax koy raxasee ndab daal di aduna daal di tukkal jamonoom sama cameraman bu ñaawal bi Ndiaye Jaata Ndiaye salu Ndiaye top mo ci bir Ndiaye mo xol Baba Diallo lu toge mu fulaale Ndiaye tamit deug tollu na aca ñu dem ko mama rasin ja woni bamum sekumar jaapul macha allah comme ni ma leen ko waxee woon rek ci bunt bi euh, tey ma ñëwoon seet si borom baatu wurus bi ma ñëwoon seet si ki nga xam ne mu nekk doomu banlieue bi muy kan muy baaba jàll moo fi woyoon li nga xam ne moo dukkal àdduna daal toj Sénégal muy baaba lay laaj dib boobu ba tey waa Sénégal gisuñu ko dib boobu ba tey waa Sénégal dégguñu ko te Baba am euh, affaire yu bëri yoo xam ne def na ko si suuf dama koy daal dékk sama micro rek mu daal di nuyoo daal si waxtaan bi Baba nuyu naa la. waaw maa ngi lay fay euh, di dellu itam di la nuyu di nuyu àdduna yëpp daal Euh, ñi ma gëj a gis yëpp maa ngi leen di bëggee di leen kontaanee euh, naan leen maa ngi nii daal. waa kay baaba si la laay ñëw yow comme ni nga ko waxee léegi euh, ñu la gëj a gis yëpp yaa ngi leen di nuyu baaba fan nga nekkoon di booba tey gisuñu la dégguñu la te yaa ngi def am ay bagages yoo xam ne yaa ngi koy def si suuf Baba fan nga nekkoon. waaw maa ngi sama ruq rek di joob maa ngi ci ruq bi di liggéey xam nga kenn ku nekk am na lu la yàlla may loo xam ne xëy na am na ci loo wane am na loo wanewul parce que ba ci bërëb bi ngeen ma fekk sax yàlla def na fii laay yëngalu ci le samedi maa ngi fi euh, ak feneen ak feneen mais maa ngi woon sama ruq di liggéey daal. Euh, dëgg la yéen a ko déggandoo waa Elvision Média yéen a ko déggandoo fans yi nga xam ne euh, ñuy fans Baba Dial nee na mu ngi woon ci rukkam di def li nga xam ne mu nekk liggéey Baba nga daal di sa nekk nekk sa rukk di liggéey Baba maanaam nga génnee single boo xam ne singal bu bees la nga wéy ci yaay ba jamono gi fu mu nekk nii euh, mun naa ne tey la single bi di euh, génn ma daal koy sàcc daal koy wax waa El Vision Média tey lay génn ci El Vision Média minuit pile rek euh, boo leen ko kalee foofu ak clip bi dina génn Baba daal fay woy lu neex daal di woy yaayam Baba est-ce que mun nga ma ñëwoon sa son yaay boobu nga woy tuuti ñamal ma si tuuti. waaw xam nga morceau bi dama bëgg sama yaay mais dama daje koo xam ne dafa mel ni man muy suma xarit di Cheikh Oumar Dia sama yaay sax laay woy parce que yaayam sama yaay la. Euh, mais yàlla dafa def ni euh, mu wax may affaire yu ma marqué ci yaayam yoo xam ne wax dëgg yàlla euh, suma xarit la dafa taxaw moom tam ci dundam yëpp pour feddali lépp loo xam ne deretu xaal pulaar la rek rawatina sénégalais bi mu yëgee ni maa ngi ci ay projet dafa ñëw wax fa dëgg yàlla def ci lim ci mën mais wax may affaire yu garaaw ci yaayam yoo xam ne moom yaayam mooy sëriñam mooy xaritam moom daal yaayam la teg fu mu tegul kenn affaire bi marqué ma ma def ci morceau waaw ah, mooy indi morceau nee na bii quoi waaw baaba mooy indi mooso nee na bi nee naa ma xale borom jiit bi maay fitti ku ne te tey damaa bëgg a fitti baaba Diallo pire baaba am na benn euh, single boo xam ne yaa ngi koy préparé di ko génnee mu nekk euh, caaroy naabe ah euh, kon baaba lan nga ñëwee kon yow depuis boobu ba tey bu la ñu ñuy gisulee da nga nekkoon ci say bagage pour génn dal di toj Sénégal wala baaba lan la ndax dangaa ñëwee force pourquoi génne génnewoo benn single daal di toog comme ni ko ñu ñi defee xaal ay un wala xaar deux ans doo doog a génne beneen mais Baba da nga génne single woy si Néné euh, génnewaat beneen singal ñu wax Baba ne dama koy teg ci raay bi lu tax loolu baaba waaw li waral lool mooy xaar bu yàgg bi dama jàngi woon euh, dama demoon gën a yokk xam-xam xam exactement lan la monde bi di dund ci côté musique lan moo taxawul lan nga xam ne tey su ma ko jëlee indil ko suma réew euh, nit ñi dinañ gis ni gaabikat bi géjoon nañ ko gis depuis boobu mais ñëw na mais indi na xam-xam xam nga àdduna lu ci bëri yoo xam ne xam-xam moo koy def du question ko di nga gis ku xew koo xam ne xëy na sens suñu borom la mais amul xam-xam dama jàngi woon nag mais yàlla dimbali na ma ñëw defuma sax ñaar de ay singal laa indi ay kon yéen a ko déggandoo waa El Vision Médias na dama jàpp ne Baba ñaar la def ndekete ñaar Baba am na loo xam ne mu ngi koy làq ci biir waxu ko waa kenn ndax nee naa man xale borom jiit bi maa koy doxati Baba pourquoi euh, pourquoi booy tëggu soirée dañuy gis ne maanaam comme euh, banlieue bi nga xam ne moo nekk Thiaroye fi nga dëkk fi nga yeewoo euh, moom nga woy son boobu muy tukkal fii yëpp ñëpp di wax la pourquoi pas Baba njëkku koo def comme nee na bi bu ñuy gis ne booy def sa soirée banlieue bi duñ duñu maanaam duñu bëri sa soirée dañuy gis ñi nga xam ne Dakar lañ dëkk ñi nga xam ne HLM lañ dëkk wala feneen ak feneen euh, ñoom ñoo ñëw teew sa ñoom ñooy ñëw teer sa euh, teew sa soirée Baba lan moo tax loolu ban connaissance nga amal ñi nga ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkk ci ville bi ak ci banlieue bi la moo tax euh, waa Caaroy duñ la wuyu si lu mu sor yi moom moo tax duñu la wuyu si wala ñoom dañoo xamul li nga xam ne dafa nekk ci yow muy borom baatu wurus bi pire waa El Vision Médias dama leen koy wax dafa am loo xam ne dafa nekk dafa dangereux lu tax loolu Baba waaw xam nga kenn ku nekk nag Euh, xëy na li la yàlla may kese nga mun a tey xam nga munoo euh, nettali suma gént ne damay nettali gént soxna si ndax naa damay daal day daal doy waar en tout cas li ma xam mooy man euh, caaro yi falaa dëkk falaa yaroo falaa màgge li ma am ginnaaw suñu borom falaa ko lépp lu may def dama leen ciy boole parce que falaa bokk mais lu mel ni ay Sidi Diop ay Ndiak Ngom yenn gaay vraiment dama leen gis ñoom ñu def seen mobilisation boobu di ñëw ay Assane Congaan mais xam nga tam du ñëpp ñoo mën a topp artiste di nga gis koñ boo xam ne euh, dañuy gëm seen artiste du ma ne nag gëmuñu ma duma wax loolu mais en tout cas comme ni yenn gars yi def ci seen dëkk ci seen artiste man loolu manqué na ma ci fa ma dëkk franchement bu may waxal te yàlla tax parce que fi may tëgg nii muy boîte surtout bi ma nekk nii tëgg tous les samedis euh, su ma fiy faral di jee day fees ba fi may joué mais boy xol bu wesso ñom sidi ñom assane ciongan ñom gaayen do fa gis ni euh, ma soxla ci tiaré pour am xamne li sama ginaaw duma ko am franchement lolu manki na ma torom xawma nak lan la parce que jamm la cheikh ak ñom kuma romb dama lay nuyu damay dem fi ma won ñima don andal rek la andal mais xawma lan la quoi franchement euh lolu deug la baba damay dal tepp fofu touti rek <laughs> euh, di la laaj touti rek baba lan ngay xaar ndax instant bi ni ne nga génnewoo ñaari single kese ay singali singali ngay génne te baaba dangaa ñëw ak force ñëw ak doole baaba lan ngay xaar pour taxaw grand théâtre wane sa bopp baaba lan ngay xaar pour euh, xaar pour dem Europe wane sa bopp ñu xam ne euh, borom baatu wurus bi kat ñëw na teew na te am na loo xam ne da ko bëgg te taxaw na ne ma puissance mu ne ma mu ne ma kenn dàqu ma woy si Sénégal lan moo tax loolu baaba lan ngay xaar lii nelaw si yow kañ nga ko yee ci àdduna waaw actuellement lu ñu doon lim benn ak ñaar euh, bu dee bunt bu ñu doon ubbi la fëgg naa ko ubbi naa bunt maa ci biir actuellement euh, damay ñaan single bi war a génn zéro heure bu génnee euh, bëgg naa feeg ay quelques fan ni ma ko mën a ñu jéggal ma ci samay france bëgg naa daal feeg ay fan ma daal di teg li nga xam ne mooy yeneen daal di jublu na parce que li nga wax ni avant may def single bi sax bi may def 11 mai wu Ndofène Fall bi Sorano laa ko bëggoon yóbbu su ma fa jógee def direct grand théâtre mais boobu fekk na affaire yi xaw a doy waar parce que xam nga musique soo ci bëggee def lu baax nag laaj ay moyens yu taxaw te bu fekkee ni tam amul ñu nekk sa ginnaaw day metti booy xool lii ma taxawal ni ginnaaw suñu borom su ma benn mag bu ñu naan euh, Sekumar su ma benn frère bu ñu naan Sekumar Dia ak ay ndimbalu Ndofène Fall ak ñeneen ñu mel ni moom Jean Baptiste Ngoma seen ñoo ci jàpp. ba ma mën a taxaw fii parce que yow am nga musique dafa laaj ay affaire dafa metti waaw. waaw yàlla ma lay dog tuuti foofu rek artiste nga. te macha allah da nga nek nit ko xam nit ku sew nga da nga nek ci banlé bi mën na né euh, fi nga nek ñoo la xamul mais bo génné ailleurs nit ñi xam nañ la bu baax euh, kon baba yow comme ni artiste di def di di di dem ci ci ay menerseur di dem fenen ak fenen di dem ñi nga xam manam euh, sen loxo jot na sen ginaaw pour nga wax la sen problème comme li nga wax légui musique dafa metti faaw am ku nek sa ginaaw faaw am ko xam da lay est ce que baba lool yaa ngi koy essayer di def wala da nga tok ci ben rukk rek tok di xaar yalla non franchement nak pour bañ la fen bu wéssu ndo fen faal bima yalla bolé ma dëkk ak mom bon Omar Gueye ministre suma xarit la mais géej na gisee depuis muy nekk PCR bu Sangalkam bu ko weesoo euh, maire ba suma yaay la suma xarit mais bu ko weesoo franchement su la nee maa ngi dem ci benn autorité pour sox lu dul gaa yi ma yàlla booleel ñu may jàppale wax naa lu ma am franchement. macha allah yéen ko déggandoo yéen a déggandoo euh, Baba Diallo doomu banlieue bi lu mu wax yéen a dégg borom baatu wurus bi lu mu wax kon daw si leen ngala ngeen ñëw dimbali ko jàppale ko ndax dafa am loo xam ne dafa nekk ci moom euh, baaba lan ngay tàggatoo ak waa Elvision Média lan ngay wax sa clip bii nga xam ne war a war na génn minuit pile rek fii daal di wàcc Baba daal di tëj bunt yi daal di tëjaale bunt yi daal di fël daal di fëlaale daal di boppam ci bu muy moom nag. waaw li may ñaan rek mooy képp kuy sénégalais te bëgg sa réew. Euh, ñun li ñu tax di liggéey njëkk suñu bopp la ak suñu réew te aussi itam nit mënoo bëgg sa réew te bëggoo sa bopp bëgg sa bopp dafa bokk ci bëgg sa réew ay sénégalais lan donte pulaar la ñuy làkk wala leneen ay sénégalais lan ñu ngi ñaan képp koo xam ne yaa ngi bitim réew yaa ngi fii ñu ngi lay tàllal loxo rawatina fi nga xam ne fa dëkk muy caaro yi jàmm gën si Kab Mbaaw Medina Fass Mbaaw maa ngi woo côté boobu yëpp naan leen maa ngi leen di tàllal loxo même bu dul pour clip bi soxla naa daal seen dimbal ci lépp bépp autorité boo xam ne yaa ngi côté boobu maa ngi lay tàllal loxo euh, di ñaan daal képp koo xam ne Sénégal nga baaba mu ngi lay tàllal loxo naan la nga jàpp ci ay bagage am soxla naa loolu daal waaw. waaw baaba est-ce mën nga maa ñamal tuuti rek euh, si ci si si si caaro naa bi ndegam instant bi yaay bi moom xam naa da koy daal di nëbb rek ba min wi léegi bëgg naa moom caaro bi nga ñamal ma si tuuti rek waa caaro yi dégg ko waa baliñe bi dégg ko. Chiar nabe salminamo Chiar nabe deza salminama Chiar nabe naniyo Chiar yura Chiar nabe naniye Salam alimunyo Chiar nabe naniyo Chiar yura men Chiar yura men Chiar yura macha allah ko degando mu jox len rendez vous nak minuit pile si Elvision Media Média la ku bëgg xam baba lu mu génnee nee naa du ma leen ci wax dara nak yaay la ci wéy euh, da ngay tapé Elvision Media mo am es bu su boba di nga xam euh, doomu ben bi lan la fa woy di nga xam borom batu rus bi lan la fa wax nee la sa su ne ni la koy Elvision Media xébul ben événement la dama ko ko ci ko table bi man euh, Zaina la puissance di len tagu bu baax a baax di nuyu sama cameraman bu ñaawul bi mu naan Salim Ndiaye njaajaata Ndiaye nuyu na la bu baax jaajëf ba beneen